مريديزم بسرح لي صدري ويسر لي أمري وحن العقدة من لساني يفقه قولي أنا ما عندك سما كادو شيء كادو يجي تندخ كادو يبجو يين نيوتيابا مواتخ نيوكتلين كادو yàlla nañ ko am ngeen am ko ñu ñu jiitu li ñu wax lépp mooy wone liggéey bi nu bëgg a song jotoon na mi ngi gën a jot li santu ture te ñu ko doon jàngaloo alxuraan dafa wax ci lisaanu xaalu alquran falawla nafara min kulli firqatin taifa liyatafaqahu fi ddin waliyunziru qawmahum waaye baat bi ñu jëm mooy isa rajau isa rajau alquran fii nee na léeg-léeg nit jàngi te du ñibbisi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 Cheikh Abdourahman naal fii ak yeneen naal yi ñu dañuy noppalu ci isaa rajau tàmbalee jàng sunu bopp jàng li nu am xam ñi nu am romb fi nu yem jàng sunu bopp xam sunu bopp xam leenu am romb fi nu nek lol dal sëñ bi maa ngi jéxal ci ñaanal la yal na nga wote waat ne tay la ñuy inauguré mu fekk la fi fekk fi mbollem ku tew ak ku bëggona tew te fekk fi al khalifa Cheikh mohammed al muqtada